alors euh, alors euh, man je n'ai jamais entendu votre nom euh, dans la liste des candidats retenus euh, pour la candidature de de de Benno Bokk Yaakaar pourquoi j'ai entendu parler de le premier qui s'est déclaré au secrétariat exécutif c'est Ablaye Diouf Sarr après on a parlé de Ablaye Daouda <laughs> Mame Boye Diao Abdou Aziz Euh, Mame Boye nu mu tudd. Euh, le président de l' nationale. Euh, Amadou Mame Diop Mohamed Boun Abdallah Dionne parmi les auditionnés y' a même eu Matar Matar Cissé mais mosuma ci dégg sa sa sa tur pourquoi. oui j'étais pourtant bien là. ah, ah wolof. voilà maa ngi woon foofu en réalité euh, keroog bi ma bi ñuy euh, présenter tous ces membres là avec madame Mbacké que vous avez oublié ak madame Mbacké en fait c'est Mactar qui n'en fait mm-hmm. mais xam nga euh, pays pays bi dafa am ñi ñu gën a médiatiser ak ceux qui sont moins médiatisés et je pense que justement xëy na loolu moo tax yéegu leen ko mais on était effectivement onze personnes. Euh, ci ci euh, onze personnes ci la bokkoon mais ce qui est important jot nañ la auditionné. ah bien sûr bien sûr. ok oui j'ai écouté euh, rencontre naa auditionné nañ ma. j'ai écouté mmh, Moustapha Niass pas avec Niass on a été auditionné en groupe là en fait. Ah. ñun ñëpp bi ñu gisee ak président on a tous été entendu ku nekk wax li nga bëgg def ci Sénégal et c'est là où j'ai parlé effectivement de mes et c'est mais président bi nga ko waxee ne da nga bëgg nekk candidat. lu lu mu la wax lu mu ci xalaat. ah mais c'est tout à fait normal il a trouvé que c'était tout à fait normal au contraire moom je pense que euh, son problème mooy finalement lan lay def ak tous ces candidats voilà ñun ñëpp nee na vous êtes tous d'égale dignité vous avez tous le droit vous avez tous euh, la possibilité de le de le faire par contre moom xamul nag lay def pour ça mais je pense que loolu c'est une étape à partir de de de ces auditions là maintenant il fallait ku nekk. nag jël sa décision qu'est-ce que est-ce ngay toog ñu lay tànn wala da ngay demal sa bopp et moi c'est là où j'ai décidé que man du ma toog sax ba ñu may tànn wala ma ñu may bañ a tànn. mais nga jël décision boobu lan moo sous-tendre des prises de décision. alors parce que tout simplement euh, euh, dama gis ne li taxoon ma ñëw au Sénégal la la ce ce qui était derrière tout li ma comprendre mooy finalement euh, kenn mooy tànn c'est le président moo waroon finalement tànn suy tànnee maintenant ñun ñëpp dañoo waroon pratiquement topp ci ki muy tànn. alors te yow d'accord ci loolu. waaw man je je pense que dañu waroon suñu waroon tànn ce que j'avais proposé moo ñu def euh, ay critères cinq critères. bu njëkk bi mooy le critère d'abord politique kan mooy gagner euh, fi muy fi mu dëkk muy sa commune son département toutes les élections référendum présidentiel ainsi de suite. beneen critère bi ma proposé woon mu nekk un critère en fait euh, aussi de compétence technique. parce que xam-xam da ci am importance ku war a diriger un président à mon avis dafa war nekk ku am xam-xam euh, waxuma forcement mu nekk de mon de mon niveau euh, forcément mais mu nekk koo xam ne vraiment euh, xam-xam ak niveau am kenn kenn du ko discuter. parce que jàpp nga ne ñoom ñëpp yaa leen ëpp niveau. ma waaye maa leen gën a jàng nag. <laughs> ça moom je pense ils sont tous d'accord sur ça je suis je sors de cette grande université dans le monde. non euh, Serigne je t'adore. Ah, c'est ça là moom euh, xam nga ci wàllu xam moom on discute pas de ça politique la ñuy discuter. n'est-ce pas <laughs> candidat leen gën a ah, jàng yaa leen ëpp niveau ñoom ñëpp xam nañ ko <laughs> euh, voilà je sors de sept grandes universités dans le monde dont le MIT de Boston yaa ko wax je suis le premier noir à diriger la recherche et surtout j'ai cinq brevets d'invention doo gis rarement un africain bi am loolu mais c'était pas le plus important beneen critère bi mu ci yokk mooy le critère humanitaire moi ce que j'ai fait il vingt ans de cela vingt cinq ans dama doon may ay bourses quand j'étais parce que dama ne yàlla su la mayee ba nga am xam am aussi am am li nga war a def mooy retourner dans ton pays dans le Sénégal en l'occurrence retourner dans ton village pour dimbale ñooñu pour que le chemin bi ma bi fi ma jaar man ak li ma sonne à l'école au lycée Gaston Berger de Kaolack ak à Mbour nga ay tutorat yi dama ne woon le jour bi may am xaalis li may jëkk a def mooy Gaston Berger de saint waa Gaston non non Kaolack à l'époque s'appelait Waljo Dia s'appelait Gaston Berger. foofu laa jàngee président foofu la ñu amee bac. donc donc loolu moo nekkoon le côté humanitaire et ça ça me paraît important pour que nga def donc j'ai pris lu toll ak 850 millions laa jël tabax ko lycée au bout de 10 ans bi ma paree lycée boobu dama ko daal di may. Euh, l'état sénégalais président Macky Sall d'ailleurs moom laa jox caabi jour boobu pour toute la population donc loolu humanitaire ou trois critères. et loolu critère boobu juste par rappel dafa am importance aux États-Unis mënoo nekk président comme Obama aux États-Unis te defoo loolu dugg dans les banlieues de Chicago dimbali nit ñi parce loolu li muy développe mooy l'empathie nga yërëm doomu aadama nga am solidarité ak les plus faibles nga fexe ba ñi nga xam ne yàlla def na ko yaa leen tane sur des critères économiques wala financiers ou intellectuels ou moraux nga yëm leen dimbale kan moo réaliser le plan Sénégal parce que dans la charte que quatrième waaw dans la charte bi euh, président proposé woon euh, alors dafa am critère bu am importance mooy kan moo mën a continuer le PSE qui est le référentiel euh, politique le kenn mooy mën a continuer le PSE ça veut dire kan moo ko appliqué déjà or parmi candidats bi je ne veux pas me me me je ne veux pas faire la fausse modestie xam nga Sandiara c'est le le plan Sandiara émergent c'est le le seul euh, la seule commune au Sénégal bi am 16 usines il y a pas deux c'est la seule commune bi am un port sec il y en a pas deux euh, c'est la seule commune qui a réussi en fait à créer presque 5000 emplois 2000 euh, ci usines yi et 3000 dans les agropoles parce que ñun dañu am ay 15 agro agropoles yi quoi depuis plusieurs années on a des des agropoles de melon de de pommes de terre de de de pastèque donc euh, quand quand tu mets ces critères là tout de suite da ngay daal di gis ne alors et so loolu c'est important parce que xam nga le problème essentiel may mun a dans notre pays c'est quand même le chômage des jeunes. dama ci critères yi ba mu jeex. donc vous voyez voilà alors beneen aspect bi qui qui me paraissait le le le dernier critère qui me paraisse important c'est aussi la moralité la propreté il faut que pour man un chef d'État il doit être irréprochable de par son passé de par sa gestion de par tout tout son parcours. parce que xam nga moralité boobu dans beaucoup de pays c'est d'ailleurs le critère numéro un aux États-Unis il suffit que dugg dans un scandale qu'il soit politique financier moral de tout ordre ça y est mënutoo dem et je pense que c'est l'Afrique d'une manière générale il est temps ñuy teg ay critères pour yoo xam ne ça permet au peuple aux jeunes aux femmes pour ñun le chef de l'État dafa war nekk un modèle même de droiture un modèle euh, de c'est comme un chef de famille mais en même temps dafa war a nekk un modèle pour les un pour les jeunes pour les religieux ainsi de suite donc loolu moo taxoon j'avais dit ça et quand j'ai regardé ça finalement je me suis rendu compte que ce n'est peut-être pas le critère qui allait être mis en avant. donc yow quatre euh, cinq critères yooyu yëpp vous êtes au-dessus. alors écoute euh, sur ces quatre critères c'est vrai que suñ ko